في الحق بجاه المخافى ناصر الحق بالحق علي صلاة الله ثم سلامه لقاي سريعا يقتل بالودالق وكوني له عبدا سيدا مكملا قديما لعبد الحق مختاره الأقيم إلهي بجاه المصطفى صمالي ليغفر ولي كن والتقن مالك إلهي بجاه المصطفى صمالي ليغفر ولي كن والتقن مالك وسنتي التي لا كان المختار يا فارتي ورن الوداعة الرم دواما وكفني أني شركي آخر صارت قبل فتح وقدني لا داري سلام التي بها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ok ñu ngi leen di delloo nuyoo bu baax wax ne li mm, wax ak yéen Abdul Xaadir Buso la tudd di doom ci sëñ Ibrahima Buso ñu gën koo miin ci sëñ Ibrahima Buso mbir kilaan di doomi sëñ Masamba Faati muy doomi sëñ Buso bi mm, barab bi ñu nekk nag moom la ñuy wax naawel kenn ci mm, ku jege ku tedd ki nga xam ne mooy mooy meññi soxna jaara moom la wax maam astawaalo mbakke moom moo nekk fii dëkk bi tudd naawel yàlla dogal mu àndoon feek doomam ji ñuy wax sëriñ Bousso bi moom ma leen tudd léegi ci jamono yi Maba Jaxu ay mille huit cent soixante nangam yàlla dogal mu wàcc liggéey nag ñu denc ko fii loolu mooy sababa soxna si nekk fii balaa ñoo agsi ci histoire barab bi danañ soxla sax histoire lan moo leen indi naawel ndax ñoom jolof lañ fekk baax mbaa ëpp ci ñoom foofu lañ fekk baax e, bi yàlla dogale Maba Jaxu Ba suñ borom may ko kattan te kattan gi mu fës ko jëme jëmale jëmale ci diine ak lu koy aar dafa woo boobu mboolem mbokki sëriñam yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi wax ne dama bëgg ñu àndandoo def aw say ngir mën a jàmmaarloog noonu lislaam yi ndax lu ko may bu ci wéetee bu ma amee la ma bëgg fa ma dëkkit yéen ñi nga xam ne yéen laa bokkal diine mën nañ maa gannaawu ci yéen ma bëgg ñu ànd nag def benn dànk di mën a xàccandoo di dóorandoo loolu moo taxoon woo sëriñ si ci doomi soxna yi woon ci réew mi bopp fépp ak fuñ mën a ne waaye ñi nga xam ne ñoo ñooy askan wi nag moom yàlla dogal na yooyu jamono jolof lañ nekkoon bi woote boobu jubee ñoom ñu bokk ci ñi ko wuy si ndax gis nañ ne kenn ku nekk luy aar diine ak lu koy ñoŋal jullit bu ne war na la waaye bu fekkee sa borom dénku la kattan gi nag ku am kattan gi nga dem jàppale ko te bu fekkee la muy woote ci lislaam rek la tegu te leneen raxu si eh, bi loolu amee moom ñu bokk ci ñu ko wusi kon miñ dëkkee nag ñun Saalum ñu ngi dëkk dal ci dëkk bu ñuy wax Afe ci gannaaw Kaffrine tuuti à cinq kilomètres de Kaffrine wàllu soowu Kaffrine yàlla dogal na booba am na jaraaf ji dëkk fii ji ñuy wax buur Gédal Mbocc eh, mu dëkkan Korki gi toon ak sëñ bu soobee lool ma nga xam ne mooy doomi soxna si gannaaw yàlla lañ lam wax ba sëñ bu soobee sanc si fii gannaaw dogalub suñu borom yow ci moom la jóge muy ko wan ko fii xamal ne ko suuf su mën a jaamu yàlla nga fi ah, ni plan stratégie bi tuddee it mel na ne aaru na ko fi dëkk da nga aaru ndax yooyu jamono bu leen fàttale eh, dañ daan jekki-jekki rek songu ak ak nitub diine mm-hmm. mm, jàpp njabootam yóbbu ndax ñu jëfandikoo ci leneen neex bu boobaa nag fi booba ak dex dafay nekkoon te dex neexut a jéggi wàll gi ci des boo fi jaaree ñu man laa si yéen ba mën koo aar bu ko defee nag loolu moo waraloon sëñ Bousso bi mu dikkee fi mu gastu ko nangul ko càkkuteefam loolu mi muy ñëw nag la àndaale waajuram yi mu maam astawaalo ma ñu sanc fi dëkkan fi yàlla woon mu ne fi di jaamu yàlla di fi liggéeyal lislaam ndax yooyu jamono xaadimu rasul mi nga xam ne mooy sunu yaakaar booba wóoteegut yoonam bi waaye soxna si doonan koo xam ne suñ ko yàlla dimbali la woon mu teel mm, nekk ci eh, ndigalul seen borom bi mm, di di di eh, di fi jàngale alxuraan ak xam-xam di yar njabootam di leen jàngal liggéey yooyu la fi nekkee woon yàlla dogal mu wàcc liggéey ñu denc ko fi lool mooy sababu mu nekk fii. soxna si nekk fii mooy maam Asta Walo moom mooy waajuru soxna jaara ak sëñ Bousso bi moom ma la tudd léegi amoon nañ ko ñuy wax soxna Mati buso ak soxna Xujja Bousso soxna Mati buso ay doomam ñang lañ sant soxna Xujja Bousso ay doomam wax nañ Silla lañ sant waaye ñoom ñëpp ci ay jolof-jolof lañ maam jaara nag suñu waajur da daa wax ne bu jant yi bëgg fenk ceeñeer yi yë yë wane ne jant baa ngi bëgg a fent mooy ñi nga xam ne ñoo jege woon sëriñ bi ndax kenn ku ci nekk sama borom dalaa defaloon melo woo xam ne ña nga bokkal jamono yow képp yaa ko cay am te loolu dara waralu ko loolu waajal ki nga xam ne mooy xet li mbindeef yi mu nar a feeñ ci ñoom loolu moo tax soxna jaara moo soxna astawalu mi mooy waajuram moo ko yar ci loxol boppam jàngal ko ci loxol boppam ba yàlla dogal na mu war a duggum néeg mu dugal ko ci néeg kër Maam Mor ci la nu baaxee ku baax ko ak ñam bokkal waaw noonu loolu moo moo seen diggante waaye yar bi ko yoroon ak jàngal gi ko jàngal ba nga xam ne wattu woon na alxuraan ba muy dugg nekk ak jàngal ko ëslëf ci xam-xam ba lam ca war a mën xam te teewut euh, ku teel a duggum ab néeg la ndax ba muy dem ci kër Maam Mor fekk na ñoo xam ne daanaka mën nañ ko way waaye teewut ba mu demee lépp lu jigéen de man man na ko ci jomam Ah, te te du ko yàq ci ak jaamoo yàlla am dara loolu na ki kii nga xam ne mooy waajuram moo ko defan ci moom ci ndaw waaw ah, loolu mooy relation bi doxoon seen diggante mooy ndey ju baax ak doom ju topp ndigal ñoom ñaar lool noonu noonu lañ meloon ndey ju boo ko amee dana def ci yow baax ga bu dee doom ji dégg ndigal baax ga ñu def ci yow da nga ko nangu moo tax faaw diggante boobu résultat mën na ca am nuñ ko cay séentu a loolu moo dox seen diggante si liñ mën a mën teen bi xam nga forage bi mu xamee yàggut mam robina kon fuñ mas a sanc fu ne rek teen moom la ñuy jëfandikoo ngir mën a am ndox moo tax biñ sancee fii dañ fe daal di gas ab teen teen biñ fi gas ci lañ doon roote boobu nag mooy di mel ne mbànd mii nga gis ñu tabax ni seenub soxna si foofu la nekkoon waaye yàgg gi tax na mujjoon na dem ba solo sëñ Fallou santaane woon nañ nañ ko fi defal ab teen mooy bësës ne la ca miir bële bii ñuy roota fi mu toll nii nag sëñ Abdou Lahad Mbacké moo ko digle woon ñu def ko fi booba ak léegi nag moom la ñuy jariñoo waaye no nu ko ko waxee fenn fu la waay du jige li ci sàkku si barke ah, doomu aadama nag moom doomu aadama la bu déggee mbir faaw mu dem nattu bu fekkee ne dikk nañ te gis ci seen njariñ bu boobaa kenn du leen ci soññaat loolu moo tax ma defee na xay na dañ ngeen cee gis seen njariñ ndax baraane ñu ko yittewoo lool bari na ñu fi siyaare ñoo xam ne bala ñu dem ñu faggu ci ndox mi yóbbaale waaw maanaam xam nga kii man kii ñu tàmbalee ci 1874 maa la wax ne ci la soxna si wàcc liggéey te yow bi nga fi ñëw xam nga ne fi nga jaar du yoon wu neex kon day mel ni fii daanaka ab got la ba tey 1874 ak 2018 xam nga at yu xaw a am ab diir la kon nga xam ne bañ fi nekk ñoom imagine na nan la meloon loolu kon yéeme woon na waaye ñoom seen jom seen ngor seen diine dafa taxoon bu ñu xasaa sóobu ci mbir duñ ci du deltu gannaaw xaraate nañu yoonu yàlla ndax ku ne xam ne ne ñun julli bi ñuy li ñu yàlla sàkk li ñu yàlla digal mooy ñu jaamu yàlla te bañ koo bokkaleeg dara lay tax jaamu ga rafet nag mooy da ngay da ngay doonub jullit di ko jaamu ba noppi nag am looy sukkandikoo di loo mën a jaamu yàlla mooy mooy liggéey ci àdduna wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaxirata wala tansa nasibaka min addunia da ngay sàkk loo xam ne bu ëllëgee yowmal am loola nga fay dunde waaye adduna ji nag bu ko fàtte mooy ci nga ko fi nga koy sàkkoo fee dund bu amul fu muy yem la te fii ngay sàkkoo li nga fay dundee loolu moo taxoon ñoom mu jaraloon leen lu ndax xam nga ne fii di ku dem ba bi 2018 mu mel nii nga xam ne boo xoolee garab yi mi ngi ne taras waaw euh, nga imaginer boo ci arrière deux cent cent loolu da nga xam ne kon nam meloon yéeme woon na waaye li ma la wax léegi jullit bu dëggu euh, xuux du ko daq ndax day xam ne yàlla mi nga xam ne moo bind mbindeef yi moo moom kaaraangeem te waxtu wu mu soxla mu dund dana ci dund waxtu mu fexe mu soxla mu jóge fi dana fi jóge loolu lañ doon jiital moom gëm yàlla gu mat sëkk ngor gu mat sëkk diine ju mat sëkk waaye nag nangoo liggéey ba am lañ mën a teddee ci àdduna ba tax duñu soxlaal kenn yëfi jàmm loolu bokk na ci particulier ndax eh, ñu bari Eh, booba mag la ko yàlla def moom soxna si ñu bari ci askan wi moo leen mag ñu bari dañ fi daa ñëw di diisoog moom di ko laaj ay xalaat mu leen di jox te yoon moom leen teg bañ ca jaaree duñ ko rëccu ñaareel ba ñu bari dañ fi daa ñëw di sakku si ndimbal ndax jaboot na booba te xiir na jaboot gi ñu mënoon nangoo liggéey ba daanañ am lu ñu sukkandikoo ba mën a dimbalee ñeneen loolu bokk na ci barkeb dëkk bi moom waaw maanaam xam nga da daal di xam ne eh, yoonu murid bu koy wax Serigne Touba Serigne Touba nag biñ ne koy waajuram ñu ne maam jaara maam jaara kuñ waajuram ñu ne maam astawaalo kooku defe naa ne comme nëbbootut ndax eh, ku ne xam ne ne soxna jaara dégg ngeen ci taarix ñu ne li mu fi dund ci àdduna bariwul ñenn ñi ëpp wax nañ ne fanweeri at ak la fi am li ma la wax léegi ci taarix ndax taarix moom daa góorewut moo tax ndax riwaayaat yi day day bari waaye ñi ëpp saxal nañ ne 33 ans la am ginnaaw 33 ans la am nag te sëriñ bi du ab taawam kon xam nga ne bi muy wuuj ji fekk na sëriñ bi ci ati zahir yi boobu at yi bëreegut waaye bi yàlla dogalee mu ñibbi àjjana eh, maam Mor Anta Sali dafa fam njaboot gi indil ko soxna si ndax soxna see ko fi mujj fii ci naawel gi boobu fi lañ ne mu dee leen saytu ni ki nga xam ne nee la waajur war a taxawoo njabootam moo tax moom fi la ko saytoo ba ku baax ki ci la matalal jàng ba fii lañ ko dalale ba daanaka bim mu fi jógal mokkal na alxuraan nee nañ waaw te ci saamil soxna si nga xam ne tafsir Mbàkke Ndumbe lañ koy wax mook soxna si yii astawaal mi ñoo bokk ndey ak baay muy magi soxna si moo doon jàngal sëriñ bi ci waaye sëñ bu soobee moom ma la wax moo di doomi soxna si moo ko dalal hmm. loolu kon kon kon kon boo relation yoonu murit ak naawel da ngay daal di xam ne kon eh, naawel mooy man na nañu mooy cosaan li ndax fii la sëriñ bi léppee waaw ginnaaw fii la nag te sëriñ bi mooy yoonu murit kon nga xam ne jàppal ne naawel lépp moom itam hmm. at mi mu hmm, am nga histoire dafa bari ay wuute am nañu saxal ne 1870 am nañu wax 1874 waaye tënk bi ma leen ci jox sama waajur nettali na ma sëñ Ibrahima Bousso mi nga xam ne moom la sëñ Abdou Lahad dénkoon barab bi gannaaw bu fi magam jugee di sëñ Abdoul Aziz mu mu wax ma ne bi fi sëñ Bousso bi di jóge di dem Mbàkke gannaaw soxna si am na fa fukki at te Mbàkke ma ngi fa sanc 1884 fukki at nag boo ko a ji nga xam 1874 moom lay tollool kon date boobu lañuy ñuy jàpp ne xëy na mm, du ko sori waaye nag histoire moom luñ ci yaxalul rek gore ca du ca yomb waaye nett li bi daal saxal nañ ne Sëñ Bousso bi am na fi fukki at doog a toxu gannaaw 1884 la sancoon eh, Mbàkke nag kon ñu jàpp ne 1874 xëy na du sori ak jógeem bi waaw loolu daal mm. a léegi euh, li nga wax ci defar gi waaye mille mille neuf cent soixante quinze la fi sëñ a Lahad andi woon sëñ Ibrahima Bousso muy sunu waajuru mu di ko saytu. 1979 la ko joxoon ndigal ne nañ ko defar ba méngoog noo xam ne melaw soxna si la yooyu jamono ñu defoon ca lañu man yàlla dogal ñu liggéeyoon ko terrasse boo xam ne te ñoom ci ay néegi ñax lañ dekk booba waa ñu def ci lañ man ci seen kem kattan ca yooyu jamono 1979 eh, bi yàlla dogalee ñu dem ba 2010 nag am taalibe bi fi ñëw ñu wax sëñ Idrissa Ndiaye ñu laaj ku yar barab bi ñu yebal ko ci sëñ wu Bousso mu di ko waxtaan ma xamal ko ne ko dama cee am yéene daal ci bu ma ko ma ko dimbilee nga jàpp ne loxo bu fi Serigne tubaa yabal laa war laa ànd ak ci sab liggéey sëñ Ibrahima nag boo ko mën boo mënoon a fekk ma xoob kook ordre dana nga fekk ma def ko mu ne ko xaakasa kon loolu laa doon déglu mu jox ko ci ndigal yàlla dogal moo ko yeesal ba mel ni 2010 2011 2012 ci la liggéey bi noppi mu fabaat caabi ji di ko jébbalaat ko sëñ Ibrahima Bousso yàlla dogal na sëñ Ibrahima di ko saytu ba 2007 2017 sama borom moom ko ci lañ ko wute ci liggéey bi ñun sari an roddani bil munamahan wa kulli dawaman bil busarati wa rifin وابلي ولو من تنفو النفس والورى بفاد وبالفتح والخرق أبعد نفسي الإسلاء وهي هدوة فليساك يا بيتي يا خير منيتين waaw sëñ Fallu loolu nga laaj ne waa kër sëriñ bi mel na ni yitte woon nañ barab bi lool ah li ma la wax daanaka ñi ëpp ci ñoom ñëw nañu fi ndax euh, ñëpp ci ñoom ñëw nañ fi ndax di ko dalee ci alaaji Mouhamadul Fadal sa turandoo moom daana fi ñëw ay yoon at mu ne daawul jër la daa wax ne it am na bis ne mu siyaare fi ba noppi génn joxañ baaraam ñu ne lu njiit njaaga te kii mooy njàkk comme ni ma leen ko doon jinje léegi man ne la sëriñ bi fi la léppe noo tax mu ne lu ñu njëla te kii mooy njàkk daa na wax ne dégg naa kuy dem poroxaan fii nga war a jaar ndax seet leen dem ci dëkk jigéen di nuyu ba am jigéen ju la nga ne ko yow de sa yaay nuyu na la nee na dana taxaw xoolaat la ah joxaat la jeneen yitte ba bokkut ak jëm la joxoon. nee na ku jëm ku jëm poroxaan nag te jaar fii boo demee ne maam jaara soxna Asta Walo nuyu na la mel na la nu la jàppe woon dana ko yokk. moo tax moom noonu la daan def si Abdul Qadir Mbakke sama tur loolu noonu la daan def daana fi jaar moom itam bi dem naawel ñaare ku ko mas a tàggu ne ko dama bëgg a siyaare jiit da lay ne boo ko mënee na nga jaar naa jaar fa sione sëñ Murtada Alhaaji Baara bi mu nekke xalifa moom it ñëw na fi waa kër sëñ Tuubaa daal ñu ëpp ñëw na fi semaine bii ñu nekk it naa li ëpp ci sëti sëriñ Tuubaa yi moom it jaar nañ fi am nit ñoo xam ne ñu fi jaaree sax dañuy bàcc ab kaamil ci biir barab bi doog a dem ngir rek loolu si yàlla jëfal lu baax ndax eh, ku ne xam na ne ku dem ci dëkk gis foog jigéen ne ko sa waajur nii la la dana taxawaat jàmmante waat ak yow loolu moom moo waraloon ñi def noonu waaye li ëpp ci waa kër sëriñ bi daal mel ne jaar nañ fii ci barab bi ak sëriñ Basiru moom it ba mu fi ñëw boobu fii fu jafee ñëw la waaye moom it ñëw na fi siyaara si booba mu ngi dal ak taalibe mu ñuy wax Alaaji Bamba Cuun fii ci biir dëkk bi ziyaare si nag sëñ Abdou Lahad moom it ñëw na fi waaw ëpp ci waa kër sëriñ ñëpp ñëw nañ fi moo tax jox warma buñ jox gëdd la naa ne eh, dafa dëkk boo xam ne dafa xawoon a eh, tëju tuuti waaye mel na nag mi ngi gën a jëm kanam ci ndax mel na ne def nañ fi école eh, poste de santé it mel na ne am na fi waaye yéene ji nga xam ne am nañ ko ci itam ngir mu gën a dund it incha allah dañ ci àggagud waaye fas na yéene lépp lu ñu soxla ci dëkk mu am fi loolu bokk na ci procès yi nga xam ne mm, bokk na ci suñuy mébét lépp loo xam ne lu lu nit yittewoo ci ak dundam ak dundam mën a sell ñu ñu mën ko fee uh, jëmmal ba nga xam ne dana bokk ci dëkk yi gën a ràññi ko loolu xam ne eh, ni la ñu bi joxe woon ñu yeesal ko joxewaat nañu ndigal ñi lépp lu koy jëmee kanam nañ ci góorgóorlu ba tax na yooyu it ñu ngi ci eh, loolu nag ku koy kenn du ko def ku dul waa kër Serigne Touba ba tax na kon waa kër Serigne Touba lañ ciy tàllal loxo te di leen ci yaakaar te xam ne a ah, mas na maa dégg ci kilifa gu baax mu ne ku liggéeyal soxna wax sa wàll maam jaara fay ku liggéeyal maam jaara Serigne Touba lay fay waaw kon ñu xam ne Euh, yéene yi moom mi ngi fi xëy na man man mi ci egg si waaye parce que yéene naawel mel ne dëkk yëpp incha allah waaw xaw naa tumuranke nag wala infrastructure loolu moom ndax gis ngeen ne yoon wi rek booy ñëw gis ngeen ne taxul mu neex waaye loolu lépp jàpp naa ne moom yàlla dana ko saafara ndax ni ma la ko waxee ñu bari dañ ko ëmpaloon waaye nag ñu bari ñu ngi koy découvrir léegi def naa moom ñi ëpp ci ñi fi dëkk nag dañuy bay ñi ëpp ci ñi fi dëkk dañuy bay bay la ñuy dundee itam maa tax moo tax bu bay mi jeexee beneen liggéey bu am solo daanaka du fi am solo xanaa yaxantu te boobu dëkk bii nga xam ne mooy mbir kilaan ma foofu lañ ko ñu bëri fi amagul marché boo xam ne bu bu bu la waaye yooyu yëpp day doon loo xam ne ay mébét lay doon yoo xam ne ah, mm. fas nañ yéene incha allah mu mu am ci incha allah waaw. kon li ñu tàggal mooy di leen nuyu baax di siyaare xalifa général di Mouride di Serigne Mountakha di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér ndax moom day moom moom mbokk na ci ñi nga xam ne ñëw nañ fi 2012 siyaare si barab bii booba fekk na liggéey bii ñu ko doon def noppi. xolam sedd ci lool yàlla dogal mu ñaanal di ko doon defar mbokkum taalib bi wax sëñ Idrissa Ndiaye mu ñaanal ko lool moom ree ma lool eh, xam na yëpp ne képp ku nekk xalifa général di murit baatu barab bii ci sa loxo lay ne ni ñu ko defoon sëñ Sidi Moxtaar dénk ko dénk nu ko noona it lañuy yaakaar yeesal gi ci sëñ Muntaxa saytu gi moom naka jekk juróom benn wala juróom ñaar fukk wala juróom ñett fukki at yëpp mu ngi ci suñ loxo ndax suñ waajur yi fi newoon 1937 la fi ñëw yàlla ki ko fi wutu mille neuf ñëw fi mille neuf cent soixante quinze loola ba defe ne mooy wii waaye nun dañoo baaxoo rek wéy ci digal ba xam ne képp ku xalifa général des mourides suñu yëngu bépp ci yow yow lañ koy jooyal bu loolu jàllee it ñu nuyu suñu waajur mu nga xam ne mooy xalifa suñ bu sooy ba tey moom moom mooy suñ kilifa fii di ko ñaanal moom it mu yàgg te yàgg ànd ak Serigne Mountakha ak kilifa yu baax yëpp ñoo yàgg ànd liggéeyal Sëriñ Tuuba ndax bu fi yàggee rek ñun suñu njëriñ lay doon ndax ñoom seen mébét mépp mooy mooy mooy mooy mooy liggéeyal Sëriñ Tuuba rek ndax Sëriñ Muntaxa ku ko dégg barki démb ci discours am bi mu def xam ne nee na amul jot te lu bari lu dul liggéeyal Sëriñ Tuuba kon nag ku bëgg a moom ak moom faaw nga fëttukutu fas yéene liggéey kon ñu ngi leen di nuyu ci seen tur di sant di leen ñaanal ñaan ñi nga xam ne yéen a doon def si liggéey bi it def ci yéen barke jumtuwaay yi fi ngeen bëgg mu àgg fa ci liggéeyal lislaam fépp mu yegg fa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu wasuf li marami ajilan sama ajilan waa bi asim alfalli walfallali aqir ilaahi xini yowma aljawama axaafu وليها المرورا هاجلا سمك البرخين